jërë ngeen jëf Aly Ngouille Ndiaye mu gàddu aw yatam fas yéene tàllal nu naraak def kati ñaawteef yi ba mu ne ñaay foofee la ministre intérieur ak sécurité publique toll yëral xët mu njëkk vox populi ñiy wër di sàcc xale yi ak di leen faat ku ñu ca jàpp ca cour d'assises di ëttu atte gi ñuy attee def kati ñaawteef yi Aly Ngouille Ndiaye nee na fa lañ leen di yóbbu atte leen l'observateur nañu gouvernement bi teg na ay misir yu rëy ngir xeex càccum xale yeeg gone ñuy moo xam le démb cëb añ bu mu séqoon ak taskatu xabaar yi mu Ndiaye nee na balaa genn gone di génnate ci réew mi di romb frontière yi day ànd ak mag mu yore firnde muy wone ne xale bi war naa mën a génn maanaam autorisation mu teg ci ne ba mbir yi tàmbalee lëmbi réew mi ak léegi police ak gendarmerie toogatuñu ñoo ngi taxaw temm ci kaarage ak askan wi loolu sax a tax ci diirub juróomi fan teg nañu loxo lu ëpp junni nit ngir enquête leen ci wàll wi ñetti cas yu dëgg yu wér péng ne loole am na Aly Ngouille Ndiaye ne moo amagum ci réew mi mu di fàllu ba ma ñu faat ca Touba fàllu Diop ma ñu ak ma ñu di ñëw moo waral sàccum xale yi takkar naa sa ci réew mi Aly Ngouille Ndiaye ne gëmul loolee ndax bu doon loolu la xewit bi du am ci suur région bi source a nañu gouvernement bu Sénégal caaxaanewul càccum xale yi ne Aly Ngouille Ndiaye xam le na junni nit ñu jàpp ci mbir mi ci jamono jooc naataangoom Ndeye Ramatoulaye Guèye Diop di jëwrin gi ñu dénk xale yi xam la ne ne opération bi ñu fi doon def ngir jëla xale yi ci mbedd mi dinañu ko tàmbaliwaat sa tey jii ci suba si leeral na li tax bi mbir yi xewee ak léegi ñuy sàcc xale yi ak di leen faat kenn dégg ko mu wax ci moom ministre bi anki dina kay ndax yàlla ministre Ndeye Ramatoulaye Guèye Diop génn ci patak mu xaaral gi mu nekke woon wax ci mbiri nit ñi dégg ko ñu dégg le quotidien moom it mu xëyi xibaar bi mu di xale yu ñu war a jële ci mbedd yi tey ji la ñu koy tàmbali libération nañu Aly Ngouille Ndiaye diggée na ay daan yu taratara ci ñiy sàcc ak di faat xale yi vox populi nañu Aly Ngouille Ndiaye yamul foofu ndax ku jëg politique gi ne dañuy bàyyi bëbës bi ñuy woote loi bi jëm ci wàllu parrainage ñu daje ci buntu assemblée nationale dekkalaat fa beneen 23 juin Aly Ngouille Ndiaye tontu na leen ministre intérieur nee na bu ñu fa bëggee daje nañu ba autorisation waaye bu autorisation bu boobaa danañu mele ku leen deful dara ndax xam na li koy yoot moom Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur la cloche xamal nañu ne am nañu xibaar yu wér ci ne président Macky dafa bëgg jël nit fal ko dénk ko organisation élection yi jëlee ko ci loxoy Aly Ngouille Ndiaye bàyyi ko ministre intérieur kese ni ko Abdoulaye Wade defee woon atum ba léegi parrainage dafa mas am ci réew mi ministre de la justice garde des sceaux di Ismaïla Madior Fall moo ko démocratie ginnaaw ña ca des gis ne lu baax la ndax dana tax ñu moytu candidat yu bari ci wotey présidentiel yi bii di ministre de la justice Ismaïla Madior Fall wax na journaliste soleil national yi la mu ca xalaat honorable député El Hadji Issa bu parti pur nii ci xët mu njëkk l'observateur coowal parrainage loole bu ñu ko lijjantiwul réglé ko ba mu féete boor moo nar a taal réew mi moo fi nar a tuur deret te loole ñun tontu ak i leeral ci coowal accord de pêche yi gaz bi ak càccum xale yeeg gone yi ñuy faat journal bi nañu premier ministre na waajal te xam ne député yi dañu ko sëkkatal am na yeneen i député yoo xam ne ñoom ñoo teg seen tànk ci assemblée nationale dañuy boycotté PM Suisse Ibrahima Dem mi démissionné démb l'observateur xëy na ci dikkaat nee nañu dàqul soobu ci géew politique bi Souleymane Téliko di président union des magistrats du Sénégal nee ci journal bi demuk Suisse Ibrahima Amidou Dem ci conseil supérieur de la magistrature perte bu rëy la ci magistrature Sénégal tuuba xëy ñu leeralal li procureur ba woon di Ibrahima Dem di nasaka nësër direct info di laaj ndax justice su Sénégal bi daanuwul enquête dina kay nañu en tout cas wopp ju ko dal du ay caaxaan malaise profonde nul bu wow kong moom la gaynde Sénégal yi def démb record ñu ci max sub amical bi doxoon seen diggante ak Bosnie la ndam demul dikkul kenn dugalul sa morom dara guney Aline Cissé yi mu di gaynde yi ba léegi mënaguñu ko stade yi ne kay nañu li gaynde yi wane waa démb dalul am xel match nul la ñu def léegi ko ne ko ak match bu nul nag